bu demee nag ba xolam wow am na yent yoo xam ne nee nañu daañu ko ca dindee ba ci jëkk mooy mboolem béréb yi nga xam ne dañu fay mooy yàlla mbaa ñu fay def lu amul njariñ mu di ko sori te dem ci béréb yi ñuy tudde yàlla ak fa ñuy waaraatee ak di déglu xibaar yi gaa yu baax ya muy benn ñaareel bi mooy bari la fàttaliku dee ñetteel bi mooy di teewe ñiy génn àdduna di sukkuraat nañu def ba rooga génn ca ñoom di gis loolu dana taxa jaaju deltu gannaaw ñeenteel bi nag mooy di ànd ak ñu baax ñi ànd ak ñu baax ñi day taxa baax wa afdalu zikri ngën ji tudd yàlla kitaabullaahi mooy téereb yàlla ba maxat tadabburi ànd ak setantal wal intibaahi ak yeewoo li gën ci xeeti tudd yàlla yi nag mooy jàng alxuraan te di ko setantal di ci jéem a yokku ak xam li tax mu ne alxuraan moo gën lépp luy xeetu tudd yàlla addis ba daa wax ne man qara alqur'aana thumma ra'a anna ahadan utiya misla ma utiya faqad istasghara ma hadama allah ak addis ba wax ne inna alquluba tasda'u kama yasda'u alhadid wa jilaa'uha tilaawatul quraani wa dikrul mawt hadis bu jëkk bi dane ku yàlla may mu mën a jàng alquran mu defee ne yàlla jox na keneen lu gën lam ko jox kon day fekk na lu yàlla réyal lool moom mu tuutal ko lool lool bu ñaareel bi ne xol yi dañuy xomaag ni nga xam ne moom la weñ gu ñuul di xomaage lay dindi xomaag ja nag ca xol ya mooy jàng alquran ak fàttaliku dee bu dee koo xam ne nag moom mënta seetantal kon na ànd ak pas-pas bu sell te jéem di tudde baat ya na mu doon rek di moytu yàq lum néew néew di moytu gaawantoo ko ba nga xamee ne dana jël aw araf mbaa baatub lëm su dee gaawal am njàngam itam na fexe ba la muy jàng wér te leer nga xam ne du jël dara dara du baat du araf lépp na dikk nee nañu soxna Aysa mas naa romb kuy jàng alquran di ko gaawal lool lool mu ne kii daal jàngut bàyyiwut wa aayatun aaya waaxidatun bu di benn dudub birat bopp setantaleef na fiihaa ci moom te fooxu dana kawe xat matan ak wàcce xalaat goo xam ne wéet na minhu ci setantal jenn laaye képp ju mu jàng te teylu ko setantal ko moo gën mu wàccee kaamil bi lépp lépp te amul setantal googu ay limu ci namm bi salaatin ci ak julli aw bi mushafin wala ci kaamil sama boobu yëkkatiku na moo xam day julli di jàng alquran wala dafa yor kaamil ba di jàng di ko xool wala day tari li mu ci mën doon daal moom seetantal ga di ko teeylu di ci jëm yokk ak xam moo ca gën al imaamu xal yi nee na jàng alxuraan ci biiru julli te taxaw boole ca moo féete kaw ndax araf wu ne daañu la ci bindal téeméeri yiw ba ca topp mooy julli julli gàpparu toog arafum jàng ci alquran rek daañu ko ci bindal juróom fukki yiw ba tey jàng xool ci kaamil bi moo gën njàngum tari rek ndax sa loxo yi nga wëlbatee këyit gi ak sa bët yi ngay xoole bi ci nekk day am tuyaabay boppam mu ànd ak nag tuyaabay jàng gi ak teewlu gi wal jëxaru ak biral ga xay su salima foofu xam ne mucc na min riyaa in ci ngistal ba tey jàng alquran wax ko ca kaw moo gën jàng wax ko ci suuf ci kaw nag ñaari sart benn bi mooy bu ko yëkkatee du tax mu ngistal ca maanaam wane mokkalam mbaa wane rafetum njàngam du ko ca fekk day jàng rek mel ne bu doon moom dong moom mbooloo mi teew fi di ko dégg ñoo yemoo ci moom ñaareel ba mooy kenn bañ faa nekk koo xam ne bu dee jàng di ko wax ca kaw kooka dana ca loru moo xam kooka day julli wala day nelaw mbaa daa wéré di waaye moom daal bu déggee kiy jàng muy wax ca kaw dana ci amee lor yooyu yaar moom bu ci amee na wax ci suuf moom miy jàng alxuraan te bañ a wax ci kaw bu fekkee ne daal bu waxee ci kaw xëy na du mën a sellal dana ca bëgg a wane boppam wala boog bu waxee ci kaw mën naa mu lor ca kenn kenn rek na bàyyi kon wax ci kaw tey wax ci suuf su fekkee ne nag yooyu yaar amu ci kon wax ca kaw moo gën wax ci suuf nee nañu jàng alxuraan moo gën a màgg ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi moo xam kooka dana xam alxuraan la muy tekki bu ko dee jàng moo xam du ko xam da cay tegtal mooy ku ñuy wax ahmadu bnu hanbal ku siiw la daa géntoon gis boroomam laaj ko ne ko waaw ñi lay jaamu bëgg laa jege lu gën ci ñu koy def ndax jege la mu ne ko ahmadu xanaa jàng sama wax ji muy alquran ahmadu bnu hanbal ne ko saa boroom ndax ka koy jàng te ànd ak xam li nga wax wala bugg xamutit du tee am njàngam baax mu ne ko ahmadu mu xam li ma wax ak xamu ko du tee rek jàng alxuraan daal moo gën lépp lu jëmm di def ndax bëgg maa jege teewul nag ñu xam ne kay jàng te xam la borom bi wax di ko doolee setantal di ca dolliku xam kooka moo féete kaw ka nga xam ne mënta setantal rawante na bu fekkee mën na ko ba noppi nag tàyyeel tax du ko def loolu nag weddiwut lañ waxoon ne julli moo gën a màgg ci lislaam gannaaw gëm yàlla ndax julli dafa ëmbaale mboolem xeeti zikkar yi rawante na alxuraan mii ñu tudd nee nañu julli ci yonente bi itam lu mata bari la lool ndax moom nee nañu daanaka ngistal du ca dugg te dañuy faral di dogu ne moom faaw lu ñuy nangu lay doon wan naf lu naafila fil bayti ca néeba lëxwa ñeel na ko fadlun ngëneel shahiru li aji siiw aydan ba tey wa bi layli ak ca guddi ga wa jaw fihi ak biiram ba al axiri ga aji mujj xeeti naafila yi nee nañu ba tey julli moo ca gën li nga xam ne moom la jullik farata gën a màggee ci lislaam gannaaw gëm yàlla ba tey noonu la jullit naafila gëne xeet naafila yi ci des moom nag nga defe ko ca kër ga ci sa néeg moo gën defe ko ca jàkka ja mbaa keneen foo xam ne dafa fés ñu lay siyeen ndax naafila ci néeba mooy gën a sell mooy gën a dal ci takk-takk mboolem xeeti julli yi moom bu dee farata defe ko ci jàkka ja ca mbooloo ma moo gën defe ko feneen waaye naafila moom defe ko ci kër ga moo gën defe ko ci jàkka ja ba mu des ñaar rakkay fajar moom bu dee ci yoonu maali dañuy wax ne defe ko ci jàkka ji moo gën def ko ca sa néeg ba tey it naafila ci guddi moo gën naafila ci bëccëg ndax guddi tey jamono yi nelaw ak càggante ak topp bànneex wàcc ca sa nooflaay jóg di julli nag day lu jafe-jafe moo tax naafila ci guddi moo gën naafila ci bëccëg te itam guddi gi lu mu gën a sori di jege ji fajar rek ba tey danaa fi la koy gën a baaxati ndax yooyu jàpp ndax lu guddi gi gën di sori rek nelaw ak càggante gën di neex ak it addis ba daa wax ne guddi gi boo ko defee ñetti xaaj su ñaar ña demee ba mu des benn yàlla day wàcc ba ci asamaan si gën a jege àdduna di wax naa ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ana ku may jéggalu ma jéggal ko addis ba da ne yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samaai dunia xiina yabqa tulutu leyli al axir fa yaqulu man yadxuni astajib lah man yasaluni fa untiyah man yastaxfiruni fa axfira lah ak beneen addis ne aqrabu ma yakunu alxabdu min rabbi fi jawfi leyli faslum di ab dog la dog bi dafi wax jaam bi ni war a farloo ci fàggu lu baax balaa dundama jeex ndax dund gi moom bu xësee jeex rek deesu ko am yaari yoon wa arxabul asiyaa yi gën jaa xemem yëf ya lil amwaati ñeel way faatu ya raddun moo di ak delloo ila duniyaa jëm àdduna maxal xayaati ànd ak dund walaw suway xatan ak doonte as ndiir la maanaam waxtu su gàtt gàtt faqat dongam li yaa amaloo ngir ñu jëf saalihatan jëf jiwu tanfaahum joj dana leen jëriñ in xafaloo ndeem delluwaat nañu daa wax ne ña faatu day buñ leen laajoon lu ñu gën a gën a bëgg dañuy wax ne rek yàlla may nu delloonu àdduna lu mu gàtt gàtt ndax nu mën faa def lu baax loo xam ne bu nu dellusee fii mu amal nu njariñ mu ne nag kon yow mi nga xam ne yaa ngi desandi di dund te lu yàgg-yàgg da ngay mujj rek fekk ñooñee bañ nekk ci àllaaxira di mébét ak xeymam loolee ñuy mébét ak xeymam te mënuñu ko am kon faaxatani man na nga màng mooy na nga profité baaqiya humrin aji des ci dund xadd mada gug wéy na bi xayri taaxatin ci lu topp wan xadon te nga buur way te nga jóg doole lil xayri jëm ci aw yiw xabla fawaat yi ci njëkk ak faatam kon neel góorgóorlul li des ci sa dund nga jéem cee farlu ci lu baax ndax boo demee sa dund lu ci ëpp yooyu la noonu rek ci lu dul ak topp yàlla ci lu dul aw yiw kon nag fexeel ba li des di ak topp yàlla di aw yiw nee nañu sëñ bi daana wax ne am xëy bu neexut ñu war a fexe ba am ngont neex am xëy nag mooy ñeent fukki at yi njëkk ci dund li ci ëpp nit ki day nekk ci ak ndaw du faral di farlu ci ëllëg muy àllaaxira kon nag bu ñëw fukki at yi jeexee la ko des ci dund nga xam ne kon am ngont la xëyma wéy na muy jéem a góorgóorlu ci dabu lépp lu ko rawoon wala taxaful te bul sàggan abaral mukk anil muraaxaati wali sàmmoonte li baatinil jasadi ñeel biir yaram wa ne foo toll na ngay bàyyi xel sab xol ak sam xel ci lu mu nekk boo demee sa xol ak sa xel ñu ngi nekk ci topp bànneexu bakkan bi bëgg amal la bakkan ba bëgg mbaa ñi nga yëngutu ci loo xam ne yàlla gërëmu ko benn muy lu aay mbaa muy lu amul njariñ kon nag foo toll teel seetlu sam xel ak sam xol ba xam ci lu ñu nekk boo gisee ne yaa ngi ci lu baax nga sant te di ko jéem a yokk boo nekkee nag ci loo xam ne safaan bala lu baaxut mbaa lu amul njariñ nga daldi gaaw tuub te gaaw ci génn wakkunta nga nekk waxay yi yow samas mbokk baabital xawaasi di aji takk yëg-yëg ya mbaa nga ne cër ya alxawaas su da cee jublu cër yi juróom ñaar fi kulli waqtin ci wépp waxtu xaafidal anfaasi mbir mu ngay aji wattu nooya foo tollu nee na ngay xool say cër ba xam ñi ngi ci ndigal mbaa ñi ngi ci xëtt ndigal ndax benn cër bu ci nekk dafa am buntu sawara boo xam ne moom la jàkkaar lool soo sàmmee juróom-ñaari cër yépp mucc ci bunti sawara yépp su amee nag cër boo xam ne sàmmoo ko ba mooy ca su la yàlla baaxewut njëgal ak yërmande buntu boobee nga xam ne ca la cër booba jàkkaar lool ca ngay duggee sawara foo toll it ne ngay sàmm say noo sàmm say noo mooy fexe ba noo guy génn rek fekk nga nekkoon ci lu baax bañ a bàyyi genn noo muy jàll rek noonu te defoo ci lu baax luy maye tuyaab ëllëg li ànd na kulla nafasin ngir naka gépp noo min rajulin tukkee ci waay jawharatun wurus la nafisat muy aj gànjaru maanaam mooy wu foor rek lamtan jëli wow feeñut yumkinu wow dana jàppandee an yashtariya mu jënde alkan sa koom ma bi xaa ci moom laayata naa koom moo xam ne du jeex xayru fa yiwam ba fanta bi na nga yeewu genn noo gu ne daa mel ne wurus wu foor a foor wu jaam bi yor man caa jënd koom moo xam ne du jeex mukk-mukk loolu mooy diirub nooga la muy gàtt-gàtt mën na faa def ak topp yàlla mbaa mu yéene ko fa dal ciy am yiw woo xam ne du jeex mukk ci àllaaxira ixlaau habdin wéetaluk ab jaam nafasan ak noo min taaxatin ci ak topp loo jibu dana waral xasaratan perte wala rëccu laxoo ñeel ko fi saaxati ci bis penc amma ida axlaytaxaa ndaal ndéem wéyal nga ko fil maasiyati ci mooy fa daaka loolee xusraanun perte la mu biinun koy aji bir fadriya na nga xam ne boo bàyyee genn noo rek mu jàll te defoo ci dara luy maye tuyaaba bu ëllëgee boo taxawee bis penc danga ko rëccu lool lool lu teewoon diir boobee la muy gàtt gàtt nga defoon ca ak topp yàlla lu yàlla gërëm kon nag nee na soo bàyyee sag noo muy wéy ci mooy yàlla kon moom perte la gu réy réy goo xam ne kenn mënu koo xiyaas ndax ndegam noo gi xéewal la goo xam ne mën nga ci am ngërëmul yàlla lu dul jeex nga xam ne soo ko bàyyee rek noonu te soo ko woo ci ngërëmul yàlla sax danga ko rëcc bu ëllëgee rawante na kon noo googu nga bàyyi ko mu jàll ci mooy mooy nga nekkoon ci mooy ba dara ci sa waxtu jàll loolu moom perte la gu rëy rëy rëy boo mënta yokk itam kay bul wàññi ko ñëw na ci addis ba mu ne ma min saaxatin taati xalal xabdi laa yadkurullaha fiha illa kaanat alayhi xasra jaam bi lu jàll ci waxtoom rek te tudd ci yàlla faaw rek bu ëllëgee dana ko rëccu nee nañu itam képp ku faatu rek faaw faaw mu rëccu ndax bu fekkee dafa nekkoon ci lu baax dana rëccu lu teexoon mu gën koo yokk-yokk bu fekkee dafa doon def lu ñaaw itam dana rëccu rëccu lu ko teewoon a tuub ñu ne itam jaam bi bala ñoo nocc ak ruuxam dana waxanteeg malaaka mi nga xam ne mooy nocc ruugi ne ko may ma doonte benn bis dong la it ndax ma def ci lu baax malaaka ma ne ko deseetoo benn bis mu ne kon boog may ma benn waxtu rek ma def ci lu baax mu ne ko deseetoo sax lu mat waxtu ki nga xam ne nag mooy gën a yalwaan malaaka ma mu may ko lu mu néew néew mën a def lu baax mooy ku daa bañ a joxe asaka kooku moom faaw rek di alxuraan waxe dana ne lawlaa axartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa kooku moom faaw rek dana rëcc lool di ñaan mënoona am ci waxtu lu néew néew ndax génne asaka ya nga xam ne ñoo ko waroon wa amir da ngay dundal al awqaata waxtu ya bi nawaafili ci naafile ya baadal faraidi ci gannaaw farata ya bila taxaafulin ci lu dul sàggan wa hakasa niki nii bi saw mi ci koor wal awraadi ak wérd wal zikri ak tudd yàlla wal fikri ci ak xalaat fi tamaadi ci ak sax wa bi tasadduqin ak ci saraxe wa jazbil maali ak ñoddi alal ila dawil xaaji jëm ci waroom aajo ya li wacc li waali yi ngir jëmmi kilifa ga gannaaw bam la dénkee nag farlu sa waxtu dara bañ caa jàll te defoo ca tuyaaba mu daal lay waxal nag yu bare bari yoo xam ne yu bari tuyaaba la te àggul ci war ci yow yaa koy def rek ngir sàkku ca tuyaaba lam ci njëkk wax mooy gannaaw boo joxee julli farata yi ba noppi nga farlu ci xeeti naafile yi ak sax xeet naafile yi nga xam ne ñooy jiitu julli farata yi ki dawal yi ñu dawalal tisbaar mbaa takkusaan mbaa gee yooyu yëpp na nga ci parlu bu baax a baax kon naafile yi la njëkk a tudd bu dee ci wàllu koor itam lu bokkut ak ramadaan dafa bari ay koor yu bare bari yu ñu taamu moom it neen na nga ci xër bu baax xeeti wérdi yi noonu tudd yàlla noonu xalaat ci màggug borom bi ak xalaat ci sëg mujj bu ëllëgee ak bépp xalaat bu am njariñ ba tey noonu la saraxe itam sa alal ngir yàlla dimbale ñi nga xam ne ñoo loru te yàlla rekk tax yooyu yépp na nga ci farlu bu baax la siyama rawante naag faadilatul ayaami aji gëni bisi ya maxal aqaari bi ànd ak jegeñaale ya wa bil xisaami ak ci way màgg ña saraxe ak dimbali ko loru bis yëpp la baax waxtu yëpp la baax waaye nag fan yi màggal ci lislaam boo ko ci defee lay ëpp tuyaaba ba tey boo ko defee ak say mbokk day ëppati tuyaaba ndax day ndax day boole doon jokku bokk ak tuyaaba yi la nga joxe ngir yàlla rawante na itam nga joxe ko ci bis yu màgg yooyu te jox ko ñu màgg ñi ci lislaam kilifa yu màgg ci lislaam loolu itam day gën a ëppal tuyaaba ja lool lool du rekk sax saraxe ak dimbalee ñoo am rekk waxtu yi ëpp tuyaaba déedéet ba ci xeeti jaamu yàlla yi ci des ki xeeti naafile yeeg koor ak wird ak tudd yàlla xalaat ak yépp am na ay waxtu yoo xam ne boo leen ci defee la tuyaaba ci ëpp ci boo leen defoon ci yeneen waxtu yu bokkut ak yooya niki yi ñu lay bëgg a ràññeel bokk na ci fan yi nga xam ne yu bari ngëneel lañu mata baril def lu baax buñ tolloo ci weeru koor rawante na fukk ya ci mujj rawante na itam guddi yi nga xam ne ñoo tool ci fukki fan ya ci mujj daañu ca ràññeel ba tey guddik fukk ak juróom-ñaar ci moom weeru koor ak fukki fan yi nga xam ne moo njëkk ci weeru tabaski koy tuddee allayaali alxashr ak guddi ga jëkk ci weeru tamxarit ak guddi tamxarit ci boppam ak guddi ga jëkk ci rajab ak guddi nisfu shahbaan ak bëccëg ba ak guddi ñaar fukk juróom ñaar ci weeru rajab tuddoon nañu fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski waaye mën nga caa gën a ràññeel guddik arafa ga ak bëccëgub arafa ba ba tey bëccëgub bisub korite ak bëccëgub bisub tabaski ak seeni guddi buñ nee seeni guddi nag mooy buñ nee suba la korite guddi googee ak biñ nee suba la tabaski guddi googee ndax guddi yi day jiitu bëccëg yi yooyu yépp lu mat a farlu la ci lépp lu baax wal iktisaabi ak ak fàggu abadan faaw bin xamali ci jëf bi niyat xayri ci yéene aw yiw bi xayri malalin ci lu dul yokkat bokk na ci yi am solo lool te bari njariñ mooy di yëngatu ci sa yaram di fàggu wërsëg moo xam da ngay liggéey daan sa doole wala ngay jaay ko jënd ak mboolem xeeti métier rek moo ci mën a méccewoo rek nga ànd caakuk sellal yéene ci loo ci am jëmale ko ci lu yàlla gërëm loolu dañ koy jàppee jihaad ju rëy rëy ndax man talaba risqa xalaama yu sann fa huwa fii jihaad kuy sàkkoo wërsëg na nga xam ne moom la ko yoon rëdde ci jihaad ju mag a mag la nekk wa mitluhaa seenum kem la isaalu xayrin àggale aw yiw aw suróorin wala mbégte li muslimin jëm ci ab julit duuna xaraamin ci lu dul aw naqar wa suróorin ak i ay bokk na ci yi nga mën a fecclee sa waxtu ba du jàll rekk ci neen ngay fexe ba defal ab julit lépp lu koy amal njariñ ak lu mu tuuti tuuti moo xam dafa xiif nga jox ko mu lekk wala mu rafle nga fexe ba jox ko lum sol wala mu am aajo nga fexe ba dimbali ko ci aajo ja wala mu mar sax nga jox ko mu naan moom daal bul xeeb dara ci loo defal ab julit no ba tey it noo mën a def rekk ba bégal ab julit nanga ko def tey moytu nag teg ko aw naqar mbaaw ay lu mu tuuti tuuti su fekkee mënoo koo defal aw yiw moom na nga moytu teg ko lu tuuti tuuti ci aw naqar mbaa ciw ay bégal ku gëm yàlla nag dafa rëy lool ba addis ba wax ne ku bégal aji gëm bégloo nga ma man yàlla te ku ma bégloo jàpp nga ak man wëllëre te ku jàpp ak man wëllëre sawara du la laal man àdd xala xalaa muminin sururan faqad sarrani wa man sarrani faqad ittaxasa indallahi ahdan wa man ittaxasa indallahi ahdan falan tamassahu naar yax bi day bind moom faqad asarrani ak waman asarrani waaye daa mel ne sarra bégloo na ci sulaas yu bi mu ëpp nga gis ñu wax asarra ba noppi jublu ci bégloo asarra moom waaye ñu xoolaat ko nag ci yaxi addis yi ba xam nuñ ko fa indee addis ba na it ku seral xolub julit yàlla seral xolam ca bis penc mooy man aqarra ayna muminin aqarra allahu aynahu yowma alqiyaama ak feneen mu ne ku bégloo ab julit bégloo gën ko bégloo yàlla dala cee sàkkal malaaka moo xam ne boo duggee ci sa bàmmeel moo la fay fekk dina wétli ba bis penc man adxala xalaa muminin sururan xalaqa allahu min dalika sururi malakan yadxulu alayhi fi qabrihi wa yunisuhu ila yawm alqiyaama wax ba na nga nëbb mooy na nga denc li naf si ka ñeel sa bopp xala tamaadi ci ak sax daxiratal wirdi ndaxañ téefal wird maanaam dencub wird minal awraadi ci wird yi walaw xalilan ak doonte day aji néew li yakoona ngir mu nekk fii xadin ci ëllëg man fa atan di njariñ yowmal jawaa ca bisub njàqare ba wan na di ak tiis wa nee na nga fexe ba laqal sa bopp jëf ju baax joo xam ne da nga koy def ab dog booy saxoo di làqu nag sa digganteeg sa boroom di ko def rek kenn kenn bañ koo yëg ndax lu mel noonu bu ëllëgee boo taxawee bis penc dana la fa amal njariñ lool lool wird buñ ko waxee ab dog rek lay firi dañ ci jublu nag jëf ju baax joo xam ne waru la nga sàkk ci ab dog boo xam ne danga koy sàkkal waxtu di sàmmonteeg waxtu wa bu agsee nga def ko bu rawee itam nga fay ko mën nga ko wut ci jàng alquran mën nga ko wut ci zikkar mën nga ko wut ci julleeg woor mën nga ko wut ci jàng xasaayiti sëriñ bi ak rek mboolem yu baax yu deme noonu waxris te nga xir